ahlan bikum Dora Gaye homme d'affaires jàllale nañu ko ca kaso ga fanaan na fa guddeem gu njëkk allah Dakar Presse yéen a kaay moo ñu ko xamal Tribune yéen a kaay ne Dora Gaye kay tiisuma ko mbaaw mi ngi ci ay jafe-jafe yu métti ndax xàttekat ba ginnaaw bu mu ko dégloo fa santaane ñu jàll ko tëj ko ca kaso ga bés bi yéen a kaay ne tabaski bii di ñëw Dora Gaye ca kaso ga la koy feetee yéen a kaay bi ne waaye du moom rek de baa jaxate imaam ndaw ñoom ca kaso rëbës ga fa la ñuy feetu tabaski bi ndax ñoom ñaar ñooñu xàttekat ba fa santaane ñu tëj leen ñetti weeru kaso yoo xam fañ koy tëdd vox populi dëggal ko ne baa jaxate imaam ndaw ñetti weeru kaso la leen yoon daan yoo xam fañ koy tëdd ba pare fañ leen xalamaan kenn ku nekk si ñoom ñaar ñaar fukki junne donte nag lañ leen doon topp ci wàllu wax kàddu yi ñaaw koo xamante ne fa yor ndombo tànk lenn ci cëru président muy premier ministre a kaay ne kenn ci farandooru Ousmane Sonko yi muy Alassane bu Sonko moom i takk dere teg nañ ko loxo dig fañ koo jàpp xam nga lu tax fa wax kàddu yi ñaaw jëmale ko ci procureur ak ab attekat moo tax yoon teg ko loxo fi mu toll nii la woon wan ni na de farak Sonko ak farak Jomaay ak farak président ak farak nguur ak ñàkk farak nguur a ci yam ku jàdd ci yoon yoon fa lay teg loxo teg la daan yi war ci yow moo tax Alassane bu Sonko mii Sonko làqut ko fañ ko bàyyi ak yoon mu def liggéeyam léeg a kaay ne yoon jeex a gudde ma jambal jaañ moom bi impôt ñu war fay ak moo tax fi mu toll nii fa ñoo bloqué xaalisu groupe ma jambal jaañ bi maanaam këru taskati xibaaram ba le quotidien ak yi ni mel ba tey yéen kaay bi na ma jambal jaañ kay faa ko jàqal fi mu ci ay problèmes yu mag ndax yëf ya mu nga xamoon ca diggante 2020 koy xayma ci 91 millions ko yéen kaay moom fa laajte ne lu mu a fay fisc bi la yoon tegu ci kaw war koo fay te lépp jaar yoon nag wala boog gars fa ñoo xam yéene sëkkatal taskatu xibaar yi en njiitu taskatu xibaar yi patron de presse yi fa ñu xamal ab ndaje lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne njiitu réew mu jomaay fay ak Ousmane Sonko njiitu jëwrin yi fa xam sénégalais yoo xam ne mayuñ leen xàpp ngir ñu a a mooy ndëpp ba ñuy amal ci wàllu yoon muy assise nationale ci wàllu justice fa xam boo xam ne ba léegi jubawuñ ca yaaw seetal président de la république nekk ki jiite conseil supérieur de la magistrature fa ñoo xam ne fañ caa d'accord xam ñoo xam ne d'accorduñ ci ña ca wax nañ fañ ko teg ña ca wax nañ fañ ko teg li nga xam ne daal moom ñoom ñëpp juboo nañ ca mooy ne fa wàññi doole procureur nga xam ne ku ko neex xam na sañ-sañ jàpp ko ak yeneen pouvoir yu mu am info yéen a kaay ne mbootaayu attekat yi ci Sénégal ñoom fa ñoo d'accord ne président de la république fa war a des di nekk ca biir conseil supérieur de la magistrature waruñ ko fa génnee ci génnee ay dogal ngir jubbanti gàgganti pasar pasaree xalal ja am ci aéroport Blaise Diagne du kenn ku ma njiit lu bees la Cheikh Bamba Dièye source a yéen a kaay jël dogal litre essence yu bëri yoo xam ne ko doon jébbal ay chef de service ak ñu ma mën ta wax yooyu yëpp fañ ko wàññi Abdoulaye Dièye mi nga xam ne nag jiite na fi ci jamono aéroport Blaise Diagne boobu moom fa xibaar yi fi génn démb ñu naan fa xam liggéeykat yoo xam ne fu ñoo bëri ba jégg moom moo leen jël ak tappale ga fa nekk ak tasaara xaalis baak lañ leen di fay loolu yëpp du dëgg moom ba mu fay jógee loolu xamu fa woon ma ko weddee ca laas yéen a kaay ca leesi ko yéen a ko gën leeral ne man recruté wu ma lu dul 182 agent laneen lu ca yokk na kaneen la waaye du man faa bëgg mu leer la leer témoin yéen a kaay ba wax ñu ko mooy Amadou Ba taxawalut parti politique de am na xibaar yu génn démb nag naan Amadou Ba créé na parti bu bees ak dugg fii génn na faa loolu daraa ca xamut ab mouvement bu ko doon jàppale moom lañu gis waaye ab moom taxawal gut ko man ma taxaw ci l'observateur bi xëy di ñu nettali bëccëgu set setal bi président Diomaye woote woon ca diwaanu Kaolack ndangaan Fallou Kébé président AS Saloum fa faa defati jëf ju rafet yaaw seetal ñaat téeméeru defukaayu mbalit moom la jox école ya ak polis loolu lu baax la li baaxul nag te xam Kaolack ndangaan mooy dorog bu bon bu ñuy mëq bu bëri bi nga xam ne fi mu toll nii fañ koy jàpp ci diwaan ba ci anam gu bari a bërki démboo njaay la duwaan jàpp fanweeri kilo dorog bu bon boobu ca kër ayib léegi démboo njaay duwaan tegaat na loxo jàppaat nañu fanweer ak ñetti kilo drogue bu bon boobu ñuy mëq ko fóon ca gànjaay le quotidien yéen a kaay moo ñu ko xamal wal fajir yéen a kaay ne man daal faawaaru drogue bi ñuy jàpp Sénégal fi mu toll nii fa bëri ba jégg dayo te puudar bu weex bii mel ni sunguf meew nga xam ne boo ko mëqee fu ngay gis bi di bëccëg man na tatt te fay dofloo nit baaxut fay yàq nit mbaadu Sénégal fa bëgg a jéggi rëdd bu xonq bi maanaam dem bañ jàppee ko réew moo xam ne daal drogue ba fa fay jaabaa jonge commissaire jiite woon fi OCRTIS ne gis ngeen drogue bu bon bii soo gisee mu bëri ci réew mi fay firndeel ne ko fi soxla rek ndax ñi koy jaay bu leen wóoroon ne ne ko andee Sénégal du jar duñ ko fi andi waaw waaw maam Makhtar Gueye ba tey ci Walfadjri yéen a kaay ne man faa gis ne daan yi nga xam ne fañ koy teg képp ku ñu jàpp ngay jaay drogue bon boobu daan ya fa xoyof waaye bu diisoon gan na kon ñi koy jaay fa ñu moytu suñu réew mi drogue pëndëx bii moo gën a bon ci drogue yi xemu ceeg benn fay dof loo nit fay rey nit si du quotidien na xam na beneen trafic bu sonal Sénégal waaye du drogue nag mooy trafiqué bant yi ñuy sàcc ba léegi jeexagul ci réew mi si du quotidien moo ñu ko xamal la mu xamal moom la soleil yéen a kaay mooy baykatu Sénégal yi mu toll nii fa ñoo bëgg soppi doxalin li ñuy wax coopérative ñoom ñëpp ci lañ bëgg dugg fi mu ndax njëriñ la ci ñoom te xamoon na fay jamono waaye fi mu nii fañ ko bëgg a dekkelaat béykat yëpp taxawal seen i di mën di jot seen engrais ak seen jiwu état mën tamit di leen dimbale jaaree ko foofa coopérative lu baax ci béykat la li baaxul nag te ñaaw ab étudiant moo ko def fa xam xale bu jigéen bëgganteeg moom xale bu jigéen ba avocat la ah ñu dem ba mu yàgg xale bu jigéen bi na ko man daal faa bëgg ñu bàyyante nobatuma la bi weraale sa bopp yow tamit lii fa ñaaw laneen lu ko gën a ñaaw nag la dépêche yi ne kaay moo ñu ko wax te ma nga amee nag ca diiwaanu Jurbel yow seetal fa xam ab délégué médical mooy ñoo ñu nga xam ne ñooy jaay garab yi ci pharmacie di leen ko yóbbul ak yooyu waa ji daal fañ koo jàpp dóor ko fa ba mu tàlli ñeret dee wett faatu ñàkk bakkanam allah yéene kaay bi ne tegagum nañ ne kenn loxo jàpp nañ ko koo xam ne fa ñoo njort bokk na ca ña ko rey hmm, ma a rey rek